yi loolee baaxul ci benn bokk yaakaar journal bi nee na en tout cas li am ba des sàll ñii nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal ñëw nañ nag bokkatu ci yeewi askan wi journal bi nee na maître Abdoulaye Wade jamono ji moom la ñu wax ne moo jiite liste wàllu Sénégal ci liste nationale bi ndax yeewi am na liste nationale wàllu Sénégal am na liste nationale bi du l'Observateur nee na ñaari coalition yi nekkul ay coalition yoo xam ne bi ñu koy taxawal yomb na maanaam dañoo sacrifier seen bopp ngir nag mën a taxawal coalition bi yéen a kaay gi xëy duñu xibaar moom réew mi ko di nee na PDS jamono ji loole nag li muy firnde la mooy PDS maanaam nag ma ngi ci opposition radicale bi ñoom Ousmane Sonko maanaam opposition bi nga xam ne du ñu may dara Macky Sall jamono ji PDS nag fekk si na leen si ndax PDS nag bu njëkk daal da doon nooyal waaye nag ñoo fekk si ñi nga xam ne dañoo radical ba maara détail yi journal bi xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am ba mooy xeex bi ci élection législative yi ñu dëgmale diggante benn bokk yaakaar ak coalition wàllu Sénégal ak yeewi askan wi du nekk nag xeex xam ne bu yomb lay doon yéen a kaay gii di Les Échos nee na nag Abdoulaye Wade mi nga xam ne am na quatre-vingt-quinze ans ñu ne Abdoulaye Wade mooy nekk tête de liste wàllu ci seen liste nationale bi loolu nag mbaa jaaxalu leen yéen a gi délibération nee na élection député yi xeex bi dina bëri lool ci Sénégal waaye nag dina rawati fii ci diiwaanu Ndakaaro ndax nag nee nañu ci ay xibaar liste benn bokk yaakaar bi ci Dakar Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau moo koy jiite liste Yewwi Askan Wi ci Dakaru Barthélémy Dias moo koy jiite ñaar ñii nga xam ne nekkoon nañ parti socialiste ñoo fas yéene jàmmarloo ci diiwaanu Ndakaaro ndax nag la nga xam ne moo tax Macky Sall bëgg a tabb Aliou nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñaar ñi mënuñoo jaaroo ab tala dañuy géeta ngaas ba léegi ndax kër bi nga xam ne Amadou Ba ngi jël parrainage yi di ko jox Aminata Touré Abdoulaye Diouf Sarr tànkam taxawu fa yéene kaay gi dala mandat ñoom nee nañu li ñu dégg ci xibaar mooy Amadou Ba mooy jiitali si benn bokk yaakaar ci diiwaanu Ndakaaru journal bi du Source A nee na en bu ngeen gisee coalition Wallu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi ñu joxante loxo ci département yi ki nga xam ne mooy Karim Wade mbir ko négocié fa mu toog ca droit fa la ko Karim Wade négocié mbir mi nag dimanche ci ngoon la ñu ko daal di signé kaay gi di évidence xëy di ñu leeral ak di ñu faram-fàccee la nan la maître Abdoulaye Wade waxtaane ak Ousmane Sonko ba ñu déggoo ci kawi kaddu loole la journal bi ñëw di ko leeral yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas li am ba te ñu man ko wax mooy coalition wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi maanaam nag mën nañoo door Macky Sall nag ab ku maanaam mu kaaw maanaam muy tertere ndax nag coalition la boo xamante ni bu demee ci élection yi mën na indil jafe-jafe Macky Sall bi di Walf Fadjri xëy di ko dëggal di ko dëggal bu baax a baax yéen kaay gi di na nag mbir mi nag bu ñu waxantee dëgg maanaam APR ci boppam mooy xeex APR ndax nag ci biir APR dañoo gis nañu baree bari dañuy def ay combine di galgalante nekk ay noon ci seen biira te nag élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn nag koy firndeel ca diwaanu Parcelles Assainies ndax ca nee woon nañu nag ay jege ñaale Amadou Ba ak jege ñaale Mbaye Ndiaye ñoom nag voté lu ñu woon ki nga xam ne mooy Moussa Sy loolee gisoo nañ ko ca diwaanu Géejawaay ndax ndetteelu gi Aliou Sall ndetteeloo ci ville bu Géejawaay nee nañu am na nag waa APR ak nag ñenn ci allié ñoo xam ne ñoom dugal nañ ci nag seen loxo yéen kaay gi di vox populi nee na nag wàllu Sénégal jamono ji crise am na fa ndax Mayoro Faye jamono ji mer na ba maara détaale Mayoro Faye bàyyi na PDS li ko waral mooy Mayoro Faye liste nationale bi maanaam dix la loolee nag moo tax Mayoro Faye mer ba maara détaale nee na nag dañu ko trahir te nag lépp Karim Wade la yéen kaay gi di yéen kaay si nag Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nga ne mooy président groupe parlementaire libéraux yi te dëkk ca Touba mer na moom ci ba maara détaale PDS moom tim li nga xam ne nag mooy investiture yi moo ko waral yéen a kaay gi de l'observateur nee na caaf ma ngi xëm ci yenn coalition yi ndax nag lu toll ci fukk ak juróom ci ay dossiers yi nga xam ne déclaré nañ ko ci direction générale des élections am na ñeenti dossiers ñoo xam ne jamono ji nag dañu leen a rëkkale gëm su bopp bu buggaan ngay dani soo muy tuulee doo dem si élections yi dañu koo rëkkale waaye nag Adama Faye mi nga xam ne moo jiite coalition defar sa gox moom tim nag ay lisam ci wàllum parrainage bi mook buggaan ñoo yem ak Serigne Mboup mi nga xam ne mooy maire bu Kaolack jiite coalition ànd na nawle moom tim nag ay parrainage am dañu koo daal di rëkkale waaye tamit ki nga xam ne mooy Fadel Baro yéene kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu bëri na ay maire yoo xam ne ci bi dañoo ne fekk Macky Sall ñi nga xam ne ñooy électeur yi fal ci élection locale yi ñu génn jamono ji dañoo maire ba maara détaal yi di xaar élection législative yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ak l'Observateur ak Vox Populi ak L'As ñu fekk fa Omar Gueye mi nga xam ne ñooñu kenn du leen fay bu weer dee ci mairie bu Ndakaaru ndax amul benn inspecteur du travail bu leen ñemee signé li nga xam ne mooy ab contrat maanaam ñu fay leen moom waxaaliwu ma ko ndax nag administration collectivité territoriale dafa am noo xam ne moom lañ ko tëggee yéen a gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naa ñu nikk ki démb nekk njombe am na ci teer bi dem bi dikk bi dafa gàllankooro li ko waral nag mooy dafa am benn câble signalisation boo xam ne na ci 60 mètres boo xam ne dañu koo sàcc dañu koo daggal diggante gaar bu yëmbal ak gaar bu kër mbay fàll